moom nag def ci yokkoon di recadrer ñi jiite mhm. tey ndax duñu fàtte mukk discours bi mu yëkkati woon ci bii ndam si yàlla sa président ah, Lamine Gueye génne àdduna mu xamal leen ñoom ñëpp ci lii la ñuy mujj ndax duñu fàtte itam discours bi mu doon waxee ba leer song ko ba mu ba mu ba mu ba mu yëkkati ay kàddu ci yaram bu daw ci di fàttali député yi nekk ci assemblée nationale bu leen Abdou Diouf indilee loi di ngeen xam ne loi bi diine nanguwu ko ngor nanguwu ko te baaxul ci askan wi bu leen ko voté discours boobu dañ koy faral di indiwaat di indiwaat mais discours boobu tey jii la soo ko jot. actualité la tey. tey jii la soo ko jot. Mhm. ci ñi nekk assemblée nationale. ñi nekk ci yeneen institution yi nga xam dañuy bénéficier wu ay salaire ak i avantage te lépp doon moomeelu askan muy au conseil mhm. euh, des collectivités territoriales muy conseil économique social environnemental muy xawma conseil dialogue social muy faneen ak faneen fépp foo xam ne bànqaas la ña fa nekk te ñi ci ëpp dañu leen a nommé xam nga poste électif ak nominatif du benn mhm. dañu leen a nommé maanaam nekkuñu fa sax fa ñu tooge toogay askan wi waaye kenn ki jiite askan wi moo leen fa teg ñoo ñu war nañoo xool ba seeni ay jéego amala askan wi njëriñ discours yooyu la Hadji Abdoul Aziz Sy Dabakh daan yëkkati yal na yàlla yokk leeram yàlla taf ñu ci barkeem mhm. mais yu mel noonu Euh, mu ngi fi am ba léegi xeetu discours yu mel noonu te ñu ngi am yaakaar itam ni taxawaayu taxawaayu diine moom ci Sénégal nit ñi nañu xoolaat rek ci teggin ak euh, waxin mm-hmm. mais diine moom taxawaay bi mu taxawoon du mus a wàññeeku. wala dellu gannaaw ci Sénégal. voilà 24 ans après ay kàddoom ba tey nekk actualité kàddu ya mu baaxe woon euh, direy El Hadj mu ngi koy wax sànq di leen xamal ne kon lii mooy yoon bi tey bu fekkoon lii mu ngi ko fi euh, fekk yaakaar naa ne dina am lu ko metti lool ci euh, sunu assemblée nationale bi. waaw xam nga moom dañ koy ñaanal suñu borom. Mhm. taas ñu ci barkeem ndax yaakaar naa ni Sénégal adduna bi yëpp sax. xam nañu ba tey jii sax am na ñoo xam ne mos fekkewuñu mhm. maam Abdou mhm. mais ñu ngay déglu ak di seetaan ci internet beeg yu ni mel ay kàddoom yu mu doon yëkkati mais gis nga euh, Mambay Sénégal dafa am benn particularité boo xam ne c'est une chance dafa am mhm. complémentarité ak complicité ci kilifa diine yi ci réew mi te loolu du tey de ça date de très longtemps xam nga yaa ngi wax jamonoy maam Abdou mais gis nañ relation yi nga xamante ni amoon nañu ko te mu gën mu mu mu mu doon ci xar tànk tubéyam mhm. ci diggante tarixa yëpp yi nekk ci réewum senegal mhm. tey sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te ànd ak wér même chose lay def xam nga yaa ngi wax discours euh, véridique ak rappel yi nga xamee ni maam Abdou da ko doon def tey sëñ Babacar Si euh, Mansour loolu lay def xalifa général mhm. euh, Tidiane Mm-hmm. mais régulièrement on l'entend dans ses sorti muy recadré ba bu ci mujj yaa ngi wax député yi. Mm-hmm. mais bu ci mujj jagleel na ko député yi ça veut dire que. complémentarité boobu nga xamee ne moom mooy suñu chance ci kilifa diine yi nga xamee ne leen am ci réew mi moo waral sax lu bari tey ñu fànkal ñu ko ci fànn bu mu mën a doon ñu wax ci wàllu wér-gu-yaram di wax ci wàllu yenn fitna yi démb ñu ngi wax ni réew yi wër Sénégal yëpp xam nañu coup d'état wala ñuy dund coup d'état ñu génn ci ni Sénégal moom am musul am coup d'état mais c'est une chance boo xamee ni du question politique yi fa ne du question intelligence militaire yi wala euh, militaire républicain mais am nañ loo xamee nag suñu kilifa diine yi dañ ko fi teg te kenn mënu ko dindi te loolu tamit c'est une chance boo xamee ni ñun ñii di ay euh, ndaw wala di ay taskatu xibaar wala ci fànn bu ñu mën a nekk dañ ko war di delloo siwaat ba askan wi delloo siwaat xelam ci kàddu yooyu nga xamee ni démb la woon de mais c'est valable encore aujourd'hui voilà 14 septembre la ko defoon atum 1997 euh, koy fàttaliku mu di génne Aziz ta baax ñu ñaan yàlla yokk leeram taas ñu ci mm. euh, barkeem ak ñaar fukki at ñeent tey jii ñuy fàttali ko ak dëddug àddunaam rôlu euh, sunu euh, xalif généraux yi ba jàngat nga ciy def mooy comme ni ko sëñ Muntaxa di defee mm-hmm. comme ni ko yeneen xalif yi di defee maam Abdul Aziz Dabaax mm-hmm. nii la ko doon defee moom nag def ci yokkoon di recadrer ñi jiite tey mm-hmm. ndax duñu fàtte mukk discours bi mu yëkkati woon ci bii ndam si yàlla sa président Lamine Gueye génne àdduna mu xamal leen ñoom ñëpp ci lii la ñuy mujj ndax duñu fàtte itam discours bi mu doon waxee ba leer song ko ba mu ba mu ba mu ba mu yëkkati ay kàddu ci yaram bu daw ci di fàttali député yi nekk ci assemblée nationale bu leen abdu Diouf indi leen loi te ngeen xam ne loi bi diine nanguwu ko ngor nanguwu ko te baaxul ci askan wi bu leen ko voté discours boobu dañ koy faral di indiwaat di indiwaat mais discours boobu tey jii la soo ko jot. actualité la tey. tey jii la soo ko jot. Mhm. ci ñi nekk assemblée nationale. ñi nekk ci yeneen institution yi nga xam dañuy bénéficier wu ay salaire ak i avantage te lépp doon moomeelu askan muy au conseil mhm. euh, des collectivités territoriales muy conseil économique social environnemental muy xawma conseil dialogue social muy faneen ak faneen fépp foo xam ne bànqaas la ña fa nekk te ñi ci ëpp dañu leen a nommer xam nga poste électif ak nominatif du benn. Mhm. dañu leen a nommé maanaam nekkuñu fa sax fa ñu toogee toogay askan wi. waaye kenn ki jiite askan wi moo leen fa teg ñooñu war nañoo xool ba seeni ay jéego amala askan wi njëriñ discours yooyu la Hadji Abdoul Aziz Sy baax daan yëkkati yal na yàlla yokk leeram. yàlla taaf ñu ci barkeem. Mhm. mais yu mel noonu euh, mu ngi fi am ba léegi xeetu discours yu mel noonu te ñu ngi am yaakaar itam ni taxawaayu taxawaayu diine moom ci Sénégal. nit ñi nañu xoolaat rek ci teggin yi ak euh, waxin yi mm-hmm. mais diine moom taxawaay bi mu taxawoon du musa wàññeeku wala mu dellu gannaaw ci Sénégal. voilà 24 ans après ay kàddoom ba tey nekk actualité kàddu ya mu baaxee woon euh, direy El Hadj mu ngi koy wax sànq di leen xamal ne kon lii mooy yoon bi tey bu fekkoon lii mu ngi ko fi euh, fekk yaakaar naa ne dina am lu ko metti lool ci sunu assemblée nationale bi. waaw xam nga moom dañ koy ñaanu suñu borom. mu mm-hmm. taas ci barkeem ndax yaakaar naa ni Sénégal adduna bi yëpp sax. xam nañu ba tey jii sax am na ñoo xam ne mos fekkewuñu mhm. maam Abdou mhm. mais ñu ngay déglu ak di seetaan ci internet beeg yu ni mel ay kàddoom yu mu doon yëkkati mais gis nga euh, Mame Sénégal dafa am benn particularité boo xam ne c'est une chance dafa am mhm. complémentarité ak complicité ci kilifa diine yi ci réew mi te loolu du tey de ça date de très longtemps xam nga yaa ngi wax jamonoy maam Abdou mais gis nañ relation yi nga xamante ni amoon nañu ko te mu gën mu mu mu mu doon ci xar tànk tubéyam mhm. ci diggante tarixa yëpp yu nekk ci réewum Sénégal mhm. tey sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te ànd ak wér même chose lay def xam nga yaa ngi wax discours euh, véridique ak rappel yi nga xamee ni maam Abdou da ko doon def tey sëñ Babacar Si euh, Mansour loolu lay def xalifa général mhm. euh, Tidiane Mm-hmm. mais régulièrement on l'entend dans ses sorties muy recadrer ba bu ci mujj yaa ngi wax député yi mm-hmm. mais bu ci mujj jagleel na ko député yi ça veut dire que complémentarité boobu nga xamee ni moom mooy suñu chance ci kilifa diine yi nga xamee ne dañu am ci réew mi moo waral sax lu bari tey ñu fànkal ñu ko ci fànn bu mu mën a doon ñu wax ci wàllu wér-gu-yaram di wax ci wàllu yenn fitna yi démb ñu ngi wax ni réew yi wër Sénégal yëpp xam nañu coup d'état wala ñuy dund coup d'état ñu génn ci ni Sénégal moom am musul am coup d'état mais c'est une chance boo xamee ni du question politique yi fa ne du question intelligence militaire yi wala euh, militaire républicain mais am nañ loo xamee nag suñu kilifa diine yi dañ ko fi teg te kenn mënu ko dindi te loolu tamit c'est une chance boo xamee ni ñun ñii di ay euh, ndaw